waaw soxna Aïcha jërëjëf euh, pour euh, cette question euh, je m'en vais directement vous dire que euh, lii euh, c'est une demande bi nga xamante ne c'est la constitution qui confère aux citoyens. en wolof s'il vous waaw dam lay fàttali rek ne ci ay charte mhm. charte réew mi moo may bépp doomu réew mi bu fekkee dafa am la nga xamante ne daf ko dëgmal moo xam ay ndaje seen biir. nekk ay doomu réew mi ñu war kaa mën a def waaye nag bu ñu koy def dañuy ka nga xamante ne moo ŋànk réew mi wala ay doomi kilifa yi nga xamante ni euh, ñoo nekk ci nguur gi maanaam ñu leen di wax l'autorité mhm. donc informer leen yëgal leen la nga xamante ne moom la ñu namm def du dañuy xaar ci ñoom wuy l'autorisation pour pouvoir le faire quand bu fekkee sax ni tey ji yenn saa yi mën nañ taxaw ñu ne déet duñ ko def parce que teg ay raison ay raison ñuy teg sunu kanam pour ne ñu mënu leen ko def waaye nag dañuy rekk fàttali ni du une question de oui ou de non ndax ñu mën ko war a mën a def wala ñu ñàkk kaa mën a def constitution bi maanaam charte yi nga xamante ni moo tënk sénégalais yépp moo ñu jox baat moo ñu jox sañ-sañ xamal ñu ni bépp sénégalais ba nga xamante ne nga dajaloo ak say ñoñ ci benn barab fexe leen ndaje boobu bu mu yàq bu mu am toj bu mu am faagaagal benn doomu aadama ba nga xamante ne dafa bëgg dox soxlaam bu mu faagaagal kenn ka nga xamante ni euh, dafa am ay yitte nga xamante ni mu ngi koy lijjanti kon nag bu fekkee condition yooyu noonu matal nañ ko réunir nañ ko waruñu xaar ci kenn kayit buy jógee ci Massamba wala Mademba pour xamal ñu ne waaw am ngeen autorisation pour mën a def seen rassemblement boobu ndaxte charte réew mi may nañu ko ba noppi. mais mais su fekkee ne autorité bi dafa wax ne condition yooyu c'est nag. waaw xam nga condition yi pour réunir ko sa à dire dafa am ay dispositifs ay jumtuwaay yi nga xamante ne yow mi nga xamante ne yaa ngànk réew mi yaa ko war a teg yaa ko war a dajal. waaw mais ñoom suñu waxee boo ko dajalul mais ñoom suñu waxee ne suñu waxee ne conditions yi comme lu ma wax c'est li nga wax bon xam naa lu nga boo wax moom mooy suñu waxee ni a suffisance de force de l'ordre pour pouvoir encadrer affaire yooyu noonu mais ñoom suñu waxee ne loolu amul. wax yeneen raison lii ak lii ak lii moom moo tax manifestation mënoo leen ko organiser tamit bon il faut ko ngeen tënku ci loolu aussi bien. xam nga lu tax duñ ci mën a tënku. Hmm. lajj ak cuune mënta weesu ñu nekk ci juróom-ñeenti weer pour élection présidentielle jot yow nga ŋànk réew mi xam ne. ñi nga xamante ni ñoom nga ko bokkal te ñu nekk ci kuje gi dañuy soxla booloo dañuy soxla diisoo waxtaan ak askan wi joxante la xa ngir mën a liggéey Sénégal bul jàpp ne yow rek yaa war a liggéey Sénégal mais c'est autorisé wala c'est pas autorisé dama ni du affaire autorisation wala ñàkk autorisation. mooy ah, non je pense que vous comprendre en fait. on veut savoir on veut savoir est-ce que am ngeen retouru autorité yi nga xamante ni ñoom ngeen war a yëgal ni que da ngeen ni da ngeen a rassemblé waaw autorité bi ñoom dañu baaxoo ak kuje gi bàyyi. ba le jour J ci li ñu mujj gis. à deux heures de temps ou à trois heures de temps avant l'heure ñu soog a génnee kayit buy joxe autorisation te autorisation bi charte réew mi daf ñu ko jox ba noppi. d'accord xam nga ñàkk respecté ña nga xamante ne ñoom nga bokkal réew mi mënta weesu li